allahu rabbul alamin man mat lamin julli ci xayril alamin tey tagg ngeen ji sëriñ abdul xaadir mbàkke ñu gën koo xam ci ilimaan yi ilimaan yi mi ngi gane àdduna bisub aljuma ñetti fan ci wéeru tamxarit atum 1333 ci gàddaay gi dëppook le 20 novembre 1914 ci dëkk bu sell bii di ndaam daaru alimul xabir di dëkkub sëriñ ndaam abdourahman lo ci ñaari waajur yu sell deytaan tànneef di Serigne Touba Xaadimu Rasul ak soxna Aminata Kandi Bousso bi mu ganee àdduna nag fekk na ku tedd ki Serigne Touba Xaadimu Rasul mi ngi ci dëkk bu sell bi di Buxaatul Mubaaraka ñu gën koo xam ci njaareem Serigne Touba Xaadimu Rasul wóolu maam Thierno Birahim boroom Daaru Moxti di ko xamal ne soxna Aminata bu Bousso am na gan te na nga dem wutal ko aw tur te booy dem mën ngaa diibal saw yoon ndax booy dem ba ni ngay dellusee képp koo dajeel sunu borom jéggal na ko ay ba Abdou Khadir Jeylaani kon sëriñ Abdou Khadir Mbàkke maam Ceerno Birahim borom daaru Moxti moo jóge njaareem ñëw ndaam daaru alimul xabir ci ëttub sëriñ daam Abdourahman Lo tuddee ko sëriñ Abdou Khadir Jeylaani comme ni ko ko ku tedd ki digalee woon moom sëriñ Abdou Khadir Mbàkke am na ñaar ñu mu bokkal soxna Aminata Kandi Bousso soxna Maymunatul Kubra ak soxna Xadi Mbàkke bi matee dal njàngum alxuraanu karim waajuram ba sëriñ Tuuba Xaadimu Rasul moo ko dalal a indiwaat ko ci ndaam daaru alimul xabiir ci loxoy sëriñ daam abdourahman lo mu nekk foofee bind kaamil ci jamono bi fi sëriñ tuuba xaadimu rasul di bàyyeekoo sëriñ abdul xaadir mbàkke mi ngi am fukki at ak ñett ñu jël kaamil ba jébbal ko magam ja sëriñ muudu moustapha mbàkke ginnaaw loolee ñu jëlaat sëriñ abdul xaadir mbàkke yóbbu ko gédee ci loxoy sëriñ mbàkke buso mu yor ko ab diir jébbalaat ko doomam di sëriñ xasan buso ngir mu woyal xam-xamam ginnaaw loolu ñu yóbbuwaat ko njaareem ci loxoy ku ñuy wax sëriñ muhammad dem moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ginnaaw bi mu motalee am jàngam mu fob léppam jébbal ko magam ja sëriñ Muudu Moustapha Mbàkke di ko xoole waay juróom wa waaye tam def ko ab sëriñ ak royukaay topp ci ginnaawam di ko liggéeyal sëriñ Muudu Moustapha Mbàkke daal di koy dëxaloon ci foofee ca ñu gën koo ràññee ci jàkkay sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mu féete fa di liggéey lu mu am jébbal magam ja sëriñ Muudu Moustapha sëriñ Muudu Moustapha joxoon ko ndigal ngir mu dem sanc dëkk bi di Baxdaad mu nekkoon doonoon ku ragal yàlla te fonkoon lool ay magam bëggoon lool waajuram wi di Serigne Touba Xaadimu Rasul mu nekkoon ku yéeme ngir niru gu mu niru waajuram wa mu sax ci liggéey ak di jébbal magam ja di Serigne Modou Moustapha Mbacké ba ni fi Serigne Modou Moustapha bàyyee ko mu jëlaat léppam jébbal seex Mouhamadou Fadal Mbacké mi ñaareelu xalifa Serigne Touba Xaadimu Rasul def ko ma ak it royukaay ba ni fi Serigne Abdoul Ahad toogee ci xilaafa gi moom it mu daal di jël léppam ci ñetteelu fani Touba di ilimaani ilimaan yi sëriñ Abdou Khadir nag njëkk a jiite jumaay Touba bisub aljuma fukki fan ak ñeent ci weeru rakkaati gàmmu atum 1388 ci gàddaay gi euh, dëppook juróom-ñeenti fan ci mois de août 1968 ba le 13 mai 1990 sëriñ Abdou Khadir Mbacke moo nekk ilimaani Touba kon sëriñ Abdou Khadir Mbacke mi ngi jiite jumaay Touba ci ñaar fukki at ak ñaar yu teg ay fan mu nekkoon ñeenteelu xalifa ci xalifa ku tedd ki sëriñ Touba Xaadimu Rasul wuutu mboolem mboolem magam yi fi jaaroona waaye tam di doxalee nañ ko daan doxalee rawatina bëgg Serigne Touba Xaadimu Rasul ci bisub altine fukki fan ak juróom ñeenti ci weeru juin atum 1989 ci toogaay yëpp xalifaam nag yàggul dara ci fukki weer ak benn yu teg ñaari fan la toog xalifa diirub li mu nekk xalif général de Mourides moo nekk Elimaani Touba ba ni mu génnee àdduna ci leeral gi ginnaaw bi ko Serigne Abdoul Ahad Mbacke defee Elimaani Elimaani yi fukki aljuma ak benn ajjuma yi mooy mu nekk màkkatal mu karama ziyaara ji sangub sang yi Seydina Muhammad benn ajjuma bi di tawat ju ko tëraloon laata muy génn àdduna moom Serigne Abdou Khadre Mbacké mi ngi génn àdduna bisub dimanche fukki fan ak juróom-ñaar weeru kor yi atum 1410 ci gàddaay gi dëppook fukki fan ak ñett ci mois de mai 1990 mu daal di dundoon juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar kon at mi di le 13 mai 1990 la doomi Seexul Xadim ji ak soxna Aminata Kandi Bousso wuy ji boroomam yal na suñu boroom yokk ay leeram a taas ñu ci barkeem seex julli julli sunna ga sa ngay gënee yéem farlu ku faatu kaat ku juddu du tax mu soppi lam naroon